Thank you. yi asalaamaaleykum wa ñu ngi dellu di leen nuyu di leen euh, ziar di nuyu ñëpp euh, yéen a ngi seen émission wax ji ni ñu koy amalee chaque quinze jours fii ci euh, Sénégo TV gëjoon nañ fii ndax màggal geeg gàmm gi lañu ñaan ci màggalub Serigne Touba yàlla na ko suñu borom nangu lu ñu gàmm tamit ci bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko suñu borom nangu fu waaye nekk rek ñu ngi lay nuyu rawatina les Sénégalais de l' extérieur yéen ñuy bàyyi xel bu baax ñu ngi leen di ñaanal jàmm foofu. ngeen am koppar yu bëri ñëw ñibbisiwaat incha allahu rabbi eh, yàlla na eh, suñu borom eh, faj aajo yëpp ñi nga xam tamit dañu tawat ñu ngi leen di bàyyi xel yàlla may leen wér yaram ñu nekk si jafe-jafe ci prison yi yëpp yàlla euh, delloowaat leen seen kër waaye ñi génn àdduna comme li ñuy amee habitude di ko def ñooy tamit dañu leen di bàyyi xel yàlla yërëm leen xare leen àjjana ndax ñun defalu ñu yàlla li tax ñu nekk fii ba tey kon bu ñu ñaanalee ñëpp euh, ñooñu tamit war nañ leen mën a ñaanal émission wax ji tey am plaisir euh, ak contentement ni koy olof di waxee recevoir tey l'honorable député président Cheikh Bamba Dièye tey mu ñëw seet suñu ci studio Sénégal ñu bàyyi ko mu nuyoog ak mbokk Sénégal ñu seetaan actuellement. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu mbooleem mbokki Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak ci biti réew mi yi nga ni ne dinañu seetaan via le réseau Sénégal à travers internet di leen ziyaare bu baax baax. Mm. honorable euh, ñu kontaan loolu nga ñëw euh, teew fii xam naa ne c'est la première fois et ça ne pas la dernière fois. Euh, tey li ñu li ñu njëkk a waxtaanee mooy ci wàllu actualité politique. ni ni réew mi di doxee ci wàllu politique rawatina tamit ci dundinu askan mi loolu tamit euh, di ci waxtaan ndaxte député nga ñoom ñoo la sànnil xob fal la ca assemblée nationale ak doxalin bi euh, foofu ca assemblée nationale. li ñuy njëkk a waxtaanee euh, suivre nga actualité bi ñun tamit à un certain moment dañu gis Cheikh Bamba Dièye xawoon raar tuuti maanaam nekkoon ci rukkam kenn gisatu ko ba ci élection présidentielle bi ñu génn ba tey ji nii lu waraloon tekk googu ak nga làqatu woon. d'abord xam naa ni du sax tekk mais genre taxaw seetlu la woon. Hmm. Euh, parce que dama jàpp nii maa ngi bëgg a yàgg ci politique. Hmm. di ci def sama kéemtalaay kàttan am nu ma gisee politique. Hmm. ndax Cheikh Abdoulaye daf ñu daan jàngal ni politique mooy sàkk pexe yu daggan ngir jariñ si askan. ñu nekk ci ngi sant yàlla bu baax bi ñu dimbalee ba nga xamee ni yàgg giñ ci yàgg yëpp taxul ñu wedd suñu kàddu. taxul aussi ñu wàcc yoon woowu. mais du ñu tere aussi ñu constater ni malgré effort yi nit ñi di def ñu bare ci réew mi am bëgg-bëgg réew mi di soppeeku chaque fois bu ñu demee ba ni moom la rek bu ñu demee ba ci biir am ci lu ñu naqari lool. alors mu doon problème ci man. fan la jafe-jafe bi nekk est-ce que suñu système politique moo baaxul. est-ce que njiitu politique yi ñoo nekkul lañu war a nekk. est-ce que société bi aussi ñoo parewul wala ñoo xamul ci lan la ñu nekk. est-ce que idée wu état nation maanaam réew mu ñëpp bokk nga xamee ne dafay impliquer ku nekk sa niveau d'engagement nga xamee ni liy dox ci réew mi sa responsabilité la de manière directe et indirecte nga koy surveiller ba pare di si jël position somme yooyu yëpp laa ni woon nag balaa may jéggi benn tànk naa def taxaw def introspection xool en profondeur résumé li nga xamee ni mooy situation politique u Sénégal pour mën a identifier sama bopp ci biir activité yi et c'est pourquoi réflexion boobu am na solo lool ci sama wàll ndax tax na ma bind benn liir boo xamee ni dama ko tuddee Sénégal thérapie pour un pays blessé mu tour bi rek am na lu bare lu muy signifier wane na ni diagnostic mi ngi ci wane na ni aussi ay esquisse de solution ñu ngi ci loole lépp nag bu amee dafa may daal di permettre ma mën a xam ni am nañu feebar yi si suñu réew moo di que ni ñeent feebar yoo xamee ni presque moo caractériser la société en général bi si njëkk feebaru élite la maanaam njiit yi njiit yi foo ci nat ci wàllu diine ci wàllu aada ci wàllu politique dëgg la am na ñoo xam ne lañ daan bañ ak lañ war a taxaw yëpp ñu ngi koy def mais mi ngi feeñ ci biir ni mi ngi bëgg a bare ci biir kuréel yooyu ñoo xamee ne ay tappalekat tigi lañu li tax ma ne ay tappalekat lañu mooy dañoo wàcc seen ànd Euh, buñ dee ay njiit waneetuñu yoon. Mhm. waneetuñu doonuñu joxtuñu ay modèle mhm. doonatuñu ay modèle mhm. te en réalité seeni ay activité ak seen i jëf ak comme seeni déclaration day poser énormément de problème ci niveau de répercussion bi muy am ci mm-hmm. muy ay points yoo xam ni wax nga ko euh, ci côté kilifteef mm-hmm. loolu tamit euh, mi ngi ci euh, livre bi muy diagnostic bi nga xam ni def nga ko wax nga ko nga ni depuis présidentielle bi passé benn moment toog nga am benn diagnostic boo xam ne da nga ko doon def maanaam jàngat loolu mën nañ wax ni maturité la ci làng gi nga nekk ak i tamit maturité boobu ban si nga mën a def pour am feneen beneen prox ndoll boo xam ni fa ngay mën a jaaree mën a euh, saafara jafe-jafe askan mi nga xam ni bokkuña ci ñi nga xam ni yow wóolu nañ la si. waaw xam nga ma daaneel rek ci diagnostic bi. Hmm. moo di que ni dama cité benn muy euh, problème mu élite yi ñu am. Hmm. ñaareel ba élite yu matadi day hmm. indi indifférence su citoyen yi. ñetteel ba. moo di situationniste yi ñi nga xamee ne xaritu nguur lañu. nguur rek la ñuy àndal te intérêt réew mi intéressé wu leen seen bopp leen tax a jóg. beneen bi mooy euh, cupidité wu homme politique yi. su ma xoolee loolu lépp nag. dafay laaj ni société bu demee bay wëlbatiku. surtout ci mutation profonde yi Sénégal nekk. il faut que approche bi changé. sama xalaat tey jii dafa dem ci ni au lieu que ñuy def politique yi dañ ko daan di defee démb ak bërki démb. nañu góorgóorluwaat jéem a fexe lan moo dox suñu digganteeg sénégalais bi pour que ñu mën a waxtaan ak moom lu ko war a mën a impliqué ci biir processus développement ak construction wu réew mi ndax sénégalais bi bu wóotee débat boobu bu teewulee ci débat boobu dara du baax su ko bàyyeeg ñi ma ko daan bàyyeeg démb ak bërki démb aussi dara du baax su seetaanee ni ñoom ñëpp a yam aussi dara du baax il faut que ñu xam ni il n'y a rien de mauvais dans la politique nit ñi ñooy ñëw ak seen jikko ju bon ñooy ñëw ak seen i tappale mm-hmm. et ñi nga xamee ne ñoo nekk seen biir kër seexlu ko ba di duñ ci dugg dama bëgg tey jii mm-hmm. ñu commencé di déglu di intéressé wu sur les questions nationale mm-hmm. bi gën a am solo mooy commune volonté de vivre ensemble lan mooy identité nationale parce que yenu ko tax a dañuy yëgoo ba la ñuy yëkkati gis nga dafa am ay principes élémentaires yoo xamee ne bu ci réew d'accordulee du mos mën a am cohésion nationale du mos mën a am marche bu nga xamee ne dina ko dox jëm ci wàllu développement ndax nit mooy def développement programme deful développement mmh. te nit kooku su parewulee s'il ne pas éduqué aidé du ko mos a def je souvent dama koy wax jamono ju nekk nee naa leen citoyenneté kenn du ko judduwaale mmh. on ne naît pas avec mmh. on le devient da nga koy nekk ni nga koy nekkee mooy école bi. ñu organiser ko pour mu former citoyen bi. réew mi ñu organiser ko pour mu former citoyen bi. am réew pour mu organiser ko il faut un état fort. discipliné organisé tappale beeg indiscipline beeg def la neex bi nekk ci réew mi yëpp ñu mën ko am fu ñu koy yemale. ñaareel ba aussi ñu ñi mën a am la certitude de la sanction je dis souvent que ni. Mhm. États-Unis ak pays développés yi ñaari mbir lañ ñu rawee. Mhm. benn bi moo di que ni. duñu nangu nit fen leen te ku leen fen ñu folli la te duñu nangu nit sàcc la ndax nit bu la fenee mënoo ko wóolu amatu leen benn contrat de confiance bu ngeen mën a am donc warul amatul crédibilité pour gérer sa sécurité. pour appuyer foofu rek moo indi euh, projet de projet de loi pour destitution Donald Trump bi parce que nee ñu dafa am loo xam ne dafa leen kàcc ci benn côté am lu mu doon leen bët koo xam ne futur adversaire am. parce que gis nga gis nga am réew. Mm. c'est gis nga gis nga ñi nga xam ne xam nañu ni. ci ci gestion wu réew mi si la seen sécurité nekk. ci la seen développement nekk. ndax tey jii États-Unis kenn ñemewu kaa song ndax dañoo fàggu seen bopp. ba ñëpp xam na ni ay borom doole lañu. ñoom dañoo xam ni lii tax. américain bi di yëg boppam ci Amérique. mooy que ni nga am jiit loo xamee ni. day xam ne ay jiitewul ay xar. jiitewul ay ma jiitewul ay dof. et par conséquent. li nga xamee ne mooy charte yi bu ko wàccee dañ koy daal di delloo te du moom rek am na beneen président boo xamee ne mooy Bill Clinton ci fen lañ ko toppe woon ba naroon ko ci destitué am na président bu ñu dis bu ñu bu ñu di boo xam ne dañ ko forcé mu démissionné réew noonu lay doxe donc principe boobu nga xamee ne ku la fen rompre na contrat de confiance bi leen lié dafa am loo wax sànq ci biir euh, waxtaan bi ba tey mi ngi ci biir livre bi mënuñoo wax ak Cheikh Bamba Dièye ci làngum politique te du ñu tudd livre boobu parce que lépp loo xam ni xeltu nga ko wala boog dund nga ko ci làngu politique bi euh, euh, mu ngi ci biir euh, téere boobu danga nga am sànq loo wax loo xamante nii ñun Cheikh Bamba Dièye dafa am benn bët bu koy sénégalais yi di xoolee tey da nga ne ñëw xaritoog nguur xaritoog président war a xaritoog kenn ba mu falu nga ñëw ànd ak moom gis nañ ne Cheikh Bamba Dièye bëriwul lu muy dem ci coalition lu ci mujj rek mooy présidentielle bi ñu mujj ak i tamit bokkoon na ci nguur génnaat ci ba mu génnaatee la toog jàpp njàmburam nekk ci ruqam moom kese ak parteem waaw xam nga li ko waral mooy. ñu ñu ñu continuer daaneel après je reviens là-dessus. Mm, mm. mooy que ne dama wax principe bi njëkk bi tax. réewu développé yi développé. Mm. ñun suñu réew yi su développé. ñaari principe la rek benn bis si njëkk mooy ku leen fen ñu folli la. ñaareel ba moo di que ni. du ñu nangu ku leen sàcc ndax ku leen sàcc ku nekk. ñu yóbbu la kaso. Corée du Sud mooy presque neuvième puissance économique mondiale. seen dernier président. ak seen yeneen leaders yëpp ñu ngi ci kaso bi. parce que du ñu caaxaane. seen alal kon li tax. man Cheikh Bamba Dièye ma daawoon di farataal ni euh, ànd si politique du ma ko sawar a def parce que dama daan jàpp ni ci sama expérience que c'est dëgg la ni ñun ñëpp ay doomu Sénégal la ñu. Mm-hmm. dëgg la ñun ñëpp ay acteur politiques la ñu. Mm-hmm. mais jaar-jaar yi bokkul. Mm-hmm. jaar-jaar yi bokkul euh, philosophie yi bokkul. gis-gisu politique bi bokkul. mu am évolution nag day am ñu dem a dem ba Seck Sarr répartition wu force politique yi xaw a demee ne ni soo si jàppalee du dem te am na foo xam ne ba ngeen fa tollee nécessité la ngeen def bloc mais bu ngeen demee aussi ba nga xamee ne tey jii génn nañ ci ay élections je pense que ni nit mënut a rek ci ay bloc. li nga war a def mooy boo génnee ci élection nga delluwaat ci sa bopp restituer waat li nga xamee ne mooy expérience bi nga dund li ci baax yëpp nga téye la ca bon nga bàyyi jéem a yokk sa bopp yokkin bu war a tax li nga xamee ne moom nga ëmbal réew mi ci programme ci gis-gis ci organisation nga mën ko waajal sa bopp ba bu jamono wax jotee wala wone wu jotee wala bokk jot nga mën a bokk moo xam da ngay ànd wala da ngay sa bopp je pense que ni tey jii si jamono yi ci la ñu nekk. et c' est extrêmement loo xamee ni dafa bëgg tumuranke ci politique. nit ñi dañoo defe ni xëccoo la te du xëccoo. proposition la ay projet la te dañoo war a jël doomu Sénégal def ko au centre de l' activité politique. lu waaye di waxati ci politique te waxuloo lu war a tax doomu Sénégal bi yëg boppam ci li ngay wax bàyyil xamal ne amul njariñ mhm. ce n'est que du du temps perdu mhm. il faut que le Sénégalais nekk au cœur du dispositif bi nga xamee ni moom la ñu am ci suñuy biir formation politique yi parce que tey jii munuñoo wax lu weesu nañu génn réew mi ci ndóol ak ñàkk yóbbu ko ci développement te la question du sénégalais la mhm. question de l'homme dafa essentielle dafa am solo lool ba moo tax lañ doon xëccoo ak di ko wax ca naan jàppal gauche indil droite moi je préfère me recentrer sur le sénégalais xam naa ni sénégalais yi xam nañ ma xam naa ni sama trajectoire dina waxal pour man mais j'aimerais bien man ak ñoom ñu àndandoo di ànd di réfléchir ba pare di agir pour le compte du Sénégal te loolu rek moo am solo leneen li ci des yëpp ce n'est que du jeu et ce jeu là depuis ba léegi ci la ñu nekk te indi lu ñu dara. ne afa afa defee ne ni dafa xaw a mel na ni li ñuy wax tey jii bi ñu nekkee ci opposition bi. Macky Sall ba mu ci nekkee moom la doon wax. yeneen i morom ya nekkoon ci pouvoir yi moom lañ doon wax dangay xaw a jaaxle lool lan mooy indi distorsion maanaam wuute entre nit ki nga xamee ne bu nekkee ci opposition bi day lucide am xel. di wax dëgg di def dëgg. te bu nekkee ci pouvoir bi mel na ku dof wala ku jafur donc am na am na séquelles yu ci nekk. séquelles yooyu mooy ñeenti feebar yi nga xam ne moom la. ko loolu dafay indi toujours rek li nga waxoon sànq mooy nax sénégalais yi di leen fen mhm. euh, loolu ci moment bi nii ci ci ci la ñu nekk actuellement. c'est clair mhm. c'est clair parce que gis nga gis nga gis nga politique. Mhm. dafa sérieux c'est extrêmement important. daf mooy presque li gën a am solo ci réew mi. ba nga xamee ne bu ko saay-saay yoree rek. Cheikh Abdoulaye dañ daan jàngal ni. politique dafa mel ne yat boo xamee dañ ko sànni ci sën. nee na boo ko jibee rek ñu ne la eh pap mm-hmm. yow de ak ni nga yiwee mm-hmm. ak ni nga jullite mm-hmm. lii sobe la bu ko jël nga daal di daw gaaw dem taxaw fale beneen waaye xëlee fale rek jël ko du ko raxas mais da koy boolee yat ga ak tilim ba di ko tëgg sa digg gannaaw gi subaak ngoon par conséquent comme yat la woo xamee ni instrument la pour mën a sàmm waruta doon instrument pour avilir doomu aadama yi pour dominer leen pour dóor leen pour daan leen il est extrêmement important que ñi nga xam ne dañu am jikko ñu mën ko def te tant que facilité ci fen mi ngi am ci réew mi duñu mos a am dara loo xamee ne rek ci réew mi dinañu yóbbu ci développement si si mooy plaie bi gën a rëy mooy le déficit tey ji da waxuma la président de la république mais ñi ŋànk nguur yi ci biir réew mi benn par benn nga leen di jël mois par mois nga leen di jël ay kàddu yuy dandu rek nga leen di dajaleel facilité boobu froideur boobu ak ak euh, cynisme boobu nit ñi àndal moo tax nga war a mën a am doute bu wér un fonde ci seen aptitude ak seen yéene ak seen capacité développeur bi parce que fenn àndul ak collectivité mmh. àndul solidarité àndul ak transparence àndul ak communauté àndul ak distribution wu équitable ressources yi c'est l'antithèse du développement c'est pourquoi les euh, gis les pères fondateurs des États-Unis ca ca caaxaanuñu ci affaire boobu il est bon dafa jot nag que ñi nga xamee ne ñoom ñooy am cër ci réew mi ñu xam ne yorewuñu ay bàyyi ma ay nit lañu mais nit ñooñu tamit am fulla élever seen niveau de participation élever seen niveau de compréhension ak seeni exigence ba mu toll si tey jii képp koo xamee ni wax nga lu dul dëgg foo mën a toll ci réew mi su fekkente ni tu manipules leneen lu dul sa alal muy argent public ñun ñëpp ñoo war a àndandoo bokk ndey bokk baay xeex la ba nga jóge foofu parce que suñu ko defulee yéenewuñu jàmm suñuy doom suñu ko defulee bëgguñu réew mi suñu ko defulee ñun suñu bopp ñoo plombé le développement de notre pays. Mhm. et ça ce sont ces vérités là qu'il faut que man boo gisee ma ni toog taxaw seetlu am na solo. Mhm. moo tax ma ni yooyu moom la ñu war a commencer dugal ci xolu sénégalais bi dugal ko ci xelam mu doon une exigence nationale. ci kaw loolu rek ñu mën a avancer jëm ci kanam. Cheikh Bamba Dièye ba tey ci émission wax ji euh, toujours euh, sénégalais yi dañuy yàkkamti di la di la dégg euh, ndaxte bu wax jibee rek ci moom rek jàngat lay indi wala boo ko ay solution yoo xamante ni peut-être sénégalais buñ ci bàyyee xel bu baax a baax a baax nekkul waay politique bi mooy wax mais un sénégalais qui parle pour le développement du du Sénégal mais li nga wax sànq am na loo xam ni bëgg nañ ñu waxtaan ci muy jàngat bi nga xam ne def nga ko déglu nga actualité bi xool nga actualité bi seetlu nga ko comme yaa ngi toogoon di seetlu euh, mbirum euh, pétrole bi ñu fi coow Aliou Sall frère u président de la République affaire Petro-Tim ba enquête bi sax euh, commencé na noo ko jàngatee loolu fan lay dugg ci yi nga xamante ni moom nga wax sànq. ñaari feebar yi ba la indil. muy fen beeg trompé ak sàcc bi ak sàcc. ndax bu mm-hmm. fekkente ni ñun mm-hmm. sénégalais yi. Mm-hmm. ñoo bokk réew mi. am dëgg. bu ñu ko sàgganee ba tax ki am dëgg ci Sénégal mooy ki faral président de la République nga xamee ni réew mi dootul réewu dara il faut que ñu jàng quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu ñu xam ni wax jëm ci président de la République ak njabootam wala partem du yàpp leen du xeeb leen du fowe leen du gotti leen waaye dañ ñu yoreel loo xamee ni mooy essentiel lu réew mi ñun ñëpp ñu am ci wàllu di ko xool alors sur ce problème là bu fekkente ni IGE dafa def enquête nga xame ni mooy structure d'aide à la décision ou d'éclairage wu président de la République wax ka ni ko lii nga xamee ne moom la ñuy def ci ay contrat yi ñii ñu ko jox dëppoowul ak li nga xamee ni mooy article huit defe naa ci li nga xamee ne mooy code pétrolier loolu bu fekkee président bi nit la bu fekkente ni intérêt yi Sénégal ñor na ko waru cee ci jéggiti benn tànk Macky Sall deful loolu conseil boobu jot na ko toppatoowu ko kon bi mu koy def ci lu mu tey la dem jox nit ñooñu ay contrat yoo xamee ni kuñ ko defaloon ku nekk nga doon multimilliardaire te loolu njombe la ci réew si est-ce que xam nga moo tax ma ni la gis nga nit bu la xasee ba commencé di la di la sàcc mënutuloo am contrat de confiance. seen diggante boo xam ni peut-être kooku moo ko moo ko gagné. ci ñu signé ci ay contrat parce que wala boog yaama ma neex da cee am. wala affaire bi dafa war a leer. Hmm. Franck Timis. Hmm. ak lu capacité am bare bare bare. domaine bi mu dugg. Hmm. yoonam nekku ci. xamu ci dara. mënu ci dara amu ci benn expertise. waa yow Pape Maguette lan mooy ndeyu ñun ñii ñu bokk ñun ñëpp. as dërëm. dërëm boobu. ñu jël ko jox ko benn nit mu tukkeeg moom dem jaay ko damm ci biir poosam ñeneen ñi toog di xoole et on dit que de quelle logique la loolu et nan la nit ñi bëgg ñu qualifier loolu mm. avec tout le respect qu'on doit au président de la république comment les sénégalais nañ ma nit ñi wax sincèrement mm. lan nañu bëggee ñu qualifier loolu mm. est-ce qu'on ne serait pas des lâches ñun suñu gisee évidence bu mel noonu ñu ne non non la non ma je vais moi je veux être sincère et simpliste ndax man ganaaru kenn ma ci réew mi te lii may am di ko dund dafa ma doy sëkk ak barke je ne suis à la recherche de rien et c'est pourquoi je suis à l'aise ci situation bu mu mën a doon ma jàpp ni buñ ci tegee loolu of nag ci boppam di ay kuréel yoo xamee ni moom président de la république moo ko juddulu moo ko créer ci initiative boppam la bokk pour lan assurer transparence ci li nga xamee ne mooy gestion wu réew mi je pense que ni loolu wax ju feram ko laay la mënuloo bëgg benn chose et di faire valoir son contraire par conséquent dossier wu pétrole bi ci Sénégal dafa leer nañ jarul nit ñi di fi wax jëm suba ngoon on est assis sur de l'illégalité la base de départ est illégale les conclusions sont illégales et le pire Mm. c'est une forme de de spoliation maanaam càcc gu leer ñi la jëm ci kii ñaari feebar yi ma la doon wax génn na mm. Mm. fen bi ak sàcc bi donc de ce point de vue là su ñun sénégalais yi bëggee na ci ndóol te def naa ni Pape Maguette moom dong mooy défi bi mm-hmm. ndax tey ji ñàkk gi tar na ci Sénégal tar goo xamee ne ku nekk am nga ay réminiscence su hmm. yëg-yëg boo xam ne yaa ngi koy dund hmm. et je pense que ni dossier yooyu hmm. lii di pétrole ba ngay làmbi gaz ba wala ngay jëm ci zircon bi mooy yi nga xamee ne mooy instrument de plus yu ñu am gannaaw bu ñu organiser suñu bopp pour dimbali sénégalais yi ñu génn ci ñàkk gi alors dafa war a doon dossier yoo xamee ne waruñu see masla ak kenn ñu doon jàngatee enquête bi ñu bi ñu commencé ubbi ba tey sax ñaari njiit yooyu euh, bu Cosmos ak BP tey sax lañ leen war a déglu ñi muy ay responsable yoo xam ne war nañ dem tey. ah j'espère que ni dina génn fi nga xamee ni fa lañu war a yaakaar. Mm. ni fa la war a demee. Mm. mooy ñu contrat yooyu Sénégal delluwaat ci li nga xamee ni mooy souveraineté am jëm ci li nga xamee nit dañ ko spolier mm. ndax càcc gu leer naññ la. ab juge nag bu mu mën a doon ci Sénégal sa premier maître du président de la République sa premier kilifa mooy seize million de Sénégalais yi te loolu Sénégal aussi bokk na suñu feebar dama jàpp ni bu benn président de la république wala ab ministre wala ab député xëyoon bëgg a jël ñoñantal benn citoyen juge bu amul fulla boo xoolee ci yàlla xool ci yonent bi xool sa aqulaay taala war nga xamee ni sa mission ak sa sacerdoce mooy nga jël doon paravent doon kiiraay bi war a dox ci injustice boobu ak ki nga xamee ni moom la ñu bëgg a teg injustice bi. beneen beneen coow boo xam ne tamit jib na xam naa dañuy dañ koy tëbal rek ndaxte am na yeneen i mbir yoo xam ne war nga ko mën a dem doxi muy nekk ci sa agenda muy coowu 94 milliards Ousmane Sonko euh, wax ci. indi ci ay leeral ba mu dem tey ci yoon justice jaar na assemblée nationale xam naa fekk na la fa bi ñu koy àtteeg ñoom seen ñoom ba mu dem euh, ba fi nga xam ne fan lañ ko war a àttee muy wàllu yoon loolu tamit noo koy jàngatee ci ci leeral. xam nga loolu aussi dafay tudduwaat rek ci problème bi ñu am mm-hmm. léegi. gis nga muy Ousmane Sonko. Mm-hmm. wala muy keneen ci cent cinq députés yi. Mm-hmm. yoon moo leen may sañ-sañu. fépp fu ñuy gisee lu ñaaw. wala loo xamee ne ci seen xel. wan na leen ni lii yàqal jëm ci biir réew mi bu ñu ko dénoncé wulee trahir nañu serment bi nga xamee ni lii na lekk sénégal yi moo xam transaction la boo xamee ne dañ ci bokk comme partie prenante wala muy transaction boo xamee ne dañ koy suivre à distance bu mu ci mënti doon et même su fekkente ni dafa doonoon transaction boo xam ne daf ci am quatre vingt pour cent raison de plus bu si gisee caay-caay daf ko war a dénoncer parce que nit warul nangu nga nekk ci benn mbir ñu bëgg la cee fowe bëgg la cee door marto sëlam la ci jàll di sa kaw dem seen yoon par conséquent li ma naqari ci affaire bi mooy une assemblée nationale boo xamee ni son premier rôle mooy toppatoo alalu réew mi bi wax ji demee xoolul alalu réew mi li mu xool mooy seen farandoo li mu xool mooy kat kii di wax nii àndul ak ñun au lieu ñu préoccupé wu pour settantal ka ba xam xaalisu Sénégal bi nga xamee ne moom moo doon signal d'alerte bi nga xamee ne fu ñu nee ñaari dërëmu Sénégal jël nañ ko fa dañoo war a bàyyi ñun député yi suñu itte yëpp àndandoo doon bokk ndey bokk bàyyi topp ko ba jusqu'à la fin parce que boo ko toppee avec sérieux topp ko avec neutralité à la fin dëgg gi day feeñ leer nañ bu fekkente ni dafa indi dafa doon caay-caay bu jógee ci benn député sénégalais yépp koy xamandoo mm. bu fekkente ni dafa doon lu bon loo xamee ni dafa doon gàllankoor Sénégal mu doon teraanga yi député yépp mm. je pense que c'est comme ça qu'il fallait plutôt traiter ce problème là. kon ñu ko traité assemblée nationale jaarul ci yoon. non assemblée yow yaa ma gën a xam ni depuis bañ ko sosee ba léegi boo jàppee dossier Khalifa Sall ak beneen dossier beneen dossier boo ci jël bu nekk. Mm. dafa mel na ni dañoo toog ci benn garab ba pare jël si di dagg bant bi ñu toog. parce que yow mënuloo nekk ci li nga xamee ne ay luwaawu Sénégal moo la ko permettre pour nga mën a saytu ndax borom doole kenn mënut a jóg rek dal ci kawam noonu. il faut que nga am kiiraay loo xamee ni assemblée nationale daf ko jël defal ko ay député pour que ñu saytul ko alal bi xool fu muy dugg mais bu ñu demee ba loolu mënatul nekk nga xamee ni dafa am kenn koo xamee ni donte sax yéen a bokk parti bu sifflé ngeen def. ba def lu jaaduwul def lu jaadoog lu jaaduwul du doon ci yéen dara mais tey jii ana juge ba nga xamee ni instrumentalisé woon nañ ko ci dossier boobu ana député yi nga xamee ni xottiloo nañ leen immunité parlementaire am ana ministre ba nga xamee ni yuuxu woon na ni bañ koy jàpp amul woon immunité parlementaire am ah. ana ministre boo nga xamee ni demoon na ni da léegi nañu ñëwaat assemblée nationale pour ñu xotti immunité parlementaire am mm. est-ce que Macky Sall bi ko ay intérêt mm. dicté ni na bàyyi xalifa Sall est que laaj na leen seen kàddu li gën a bon mooy ña doon xas xalifa Sall tey jii ñoo yuuxu naan jàmmoo jàmmoo jàmmoo lu rafet rafet rafet il faut que ñu arrêté naa fekk googu mm. loolu kilifa moomu ko te kilifa cër la gis nga euh, benn kilifa gu rëy wax naa ko démb sax ci benn émission. dafa am benn conseil bu mu jox un président de la République pour être est le Abraham Lincoln. moo indi histoire boobu. ni dafa am benn kilifa arab. boo xamee ni dafa laajte ni wax leen ma loo xamee ni dina doon sama yóbbalu àddina ak alaxira ñu ne ko nag ba nit ñi dajaloo ñu indil ko baat mu jóge ci alxuraan ni kull man alayha faan lépp loo gis dafay jeex ndax loolu boo ko xamee moo lay permettre ni boo nekkee buur doo fuuy doo beew ndax di nga xamee ni ce n'est que pour un instant et que avant tu ne l'étais pas et après tu ne le seras pas pour de nombreuses années su fekkente ni say at may na la ko te moom lañ koy ñaanal moom président de la république conscience boobu nga xamee ni nga xamee da nga koy am ne lépp day jeex moo lay permettre aussi boo nekkee ci jafe-jafe nekk ci ay difficultés nga xamee ne aussi c'est éphémère et ça va passer donc c'est cet équilibre la moom la kilifa yi njiit yi njiitu diine yi njiitu aada yi syndicaliste yi société civile société politique ñoom ñëpp ñoo war a àndandoo parce que tey jii man suma réflexion dafa yegg ba ma xam ni ce n'est pas un problème de politicien que nous avons au Sénégal mais c'est un problème de société mm. feebar bi ñun ñëpp ñoo ko bokk inde beek suus. Mm-hmm. alors bu ñu bu ñu desee ci biir assemblée nationale euh, wax nga ci lii léegi euh, foofu la ñuy defee prondoolu dugg ci ci doxalin bi mu mel ni kii doxalin boo xamante ni askan bi ñoru leen peut-être ñi nga xamante ni ñoom ñoo am majorité ci loolu la ñuy dox ak ci kàddu seen njiit bi nga xam ni moo leen euh, moo leen wax jaar leen fii ñu jaar fa def leen lii ñu def la ko wax leen lii ñu wax ko daa mel ni ki noonu lay doxee yàgg ngeen di ko yuuxu yàgg nga di ko yuuxu ba sax dégg naa yow sentiroo sa bopp ci biir assemblée nationale mais li ñuy li ñuy wax mooy euh, ci wàllub indemnité de logement yi nga xam ni wax nañ ko pour les députés en tant que euh, député yow muy salaire bi nga xam ne dañ ci yokk deux cent mille francs est-ce que Cheikh Bamba Dièye en tant que député loolu jot na ci ah waaw ndax falaa ko fekk mhm. te xam nga yooyu aussi mhm. mooy coow li nga xamee ni mhm. paresse moo ko indi te mooy tax sénégalais yi di gën leen di leen gën di ñu gën a jéppi tout le temps parce que dafa di yoo xamee jarul te nëbbu mhm. jarul te sax di ko joxe comme ni ñu koy joxe. Mhm. parce que xaalis bi benn source la muy assemblée nationale. xaalis boobu. Mhm. xaalisu réew mi la. gisuma man lu war a tax. et ce n'est pas mon rôle parce que je ne suis pas dans l'administration de l'Assemblée nationale ñuy préférer parce que gars yi dañoo nam dañoo tàmm caay caay tàmm tappale <laughs> ba des choses yu normales il faut que ñuy def ay cachotterie mm. te jaroo ko fi. c'est mm. une indemnité. de logement ab député yi amatuñu hôtelu député ñi ëpp ci député yi bu ñu ñëwee Dakar dañuy wuti kër gu ñuy taxaw. Hmm. on dit que ni dañ ko war a def alors autant d'organiser. Hmm. il en est ainsi pour l'impôt sur le salaire il en est ainsi pour le tout. Hmm. donc li fi nekk mooy. il faut que le ministère de l'économie et des finances. moom mi nga xamee ne mooy fay solde yi ak salaire yi ci biir réew mi ak administration assemblée noppal nit ñi et je le dis aux Sénégalais ce n'est pas un problème de député cette affaire-là c'est un problème d'organisation entre le ministère de l'économie et des finances et les services de l'Assemblée nationale ñooñu ñoo war a am fulay mm. suñu bëggee yokkal député yi ak salaire 4 millions wàcc daanoo si gën a gaaw te gor dafa war a ñeme fu lay li muy def wax ko ca kaw waaw mm. parce que daf ka fi jarul parce que mm. yow mi ngi koy defal xam nga man ngoon soo ma ka laajee dama la koy wax mm. keneen am na keneen ko xam ne boo ko laajee daf koy wax donc daf ka fi jarul c'est inutile c'est inutile et ça contribue encore davantage pour décrédibiliser député yi day yokk joxaat aliment gën a dimbali sénégalais yi ñu gënaat gëm ni c'est que député yi duñu dara. tekkiwuñu dara benn c'est des paresseux. ñaar liggéey réew mi intéressé wu leen dossiers yi intéressé wu leen et c'est domage de le dire mais les faits sont la aussi parce que tey jii. boo nee danga nekk nekk réewum Sénégal. ñu ne ArcelorMittal mi milliard la Sénégal ñàkk na ñu ne zircon bi nangam la Sénégal ñàkk na ko ci. ñu ne la dossier. élémentaire yi nga xamee ne mooy la sécurité nationale nga xamee ne que démboo njaay la ñuy yooxu ne am na ay munitions yoo xamee ni réer na kenn xamul fu mu dem ces questions là mm-hmm, mm-hmm. moo waroon doon le nœud gordien de l'action de l'Assemblée nationale parce que bu fekkente ni yi nga war a def yëpp te te à c'est des dossiers qui ne sont pas politiques ñu dugg ci dossier boobu wàllu munition yooyu ñu teg loxo ca piir wàllu drogue bi di dugg ci biir dëkk bi temps yi dafa mel ni ki yoon yoonu drogue bi yoon la woon sax waaye dafa mel ni ki dafa dem ba benn moment mu commencé éclater nag mbir yi commencé leer ñu wax ci ne am na ay kilifa yoo xam ni seen loxo mi ngi ci loolu noo koy jàngate premièrement ci wàllu munition yooyu tiitaange ci affaire u terrorisme. loolu terrorisme moom lu wér la. terrorisme. lu wér la. mi ngi fi mi ngi raam. ah yàlla yàlla na bañ a manifesté ah, wu. ni mu manifesté woo ci <laughs> yeneen réew yi. mais xoddi ko balaa ngaa lakkale. balaa ngaa lakkale la. boo seetee condition yi ñu wax ni moom la ñu jàppee munition yi mënu laa wax yow depuis quand la trafic bi di am. Mhm. mënu laa wax ni ñaata quantité moo fa jot a génn avant ñu gis ndax amul enquête boo xamee ne moo jug di ko lëñbëti di ko lëñbëti ba dab ba jàpp ci. Mhm. fortuitement. Mhm. lañ ci dal. Mhm. et ça moi ça m'inquiète. te képp kuy sénégalais war na laa inquiéter ñaareel ba. gis nañu léegi que nous sommes devenus un ko narcotrafiquant. et loolu c'est les faits aussi. te yooyu nag pap yooyu député majorité député opposition waruñu si am jafe-jafe. mais est-ce que ñu ngi koy waxtaanee ci assemblée. non li moo tax ma ne les vrais dossiers yi nga xamee ne moo waroon doon la préoccupation parce que assemblée bi nga xamee ne mooy dimbali askan wi te nit ñi di ko fonk. mooy assemblée bi nga xamee ni. distance am ak sénégalais yi. distance am ak préoccupation sénégalais yi du sore. Mm-hmm. dafay toog. di déglu vibration réew mi. Mm. ba pare di anticiper si vibration yi yenn saa mu jiitu sénégalais yi yenn saa bu sénégalais bi yuuxoo mu répercuter ko assemblée nationale. Mm. te yooyu mm. c'est des débats qui doivent être des débats. sain yoo xamee ni war nañ cee mën a laaj ñu ci war a laaj mais tey jii bu ñu ni woon nañu indi ministère des forces armées assemblée nationale ñu bëgg ko def affaire coup d'état wala lu xaw a rëy dem te alors que normalement dans une telle situation fan la ministre bi war a taxaw expliquer wu fudul assemblée nationale que assemblée woo ko wala mu bañ ko woo les condition daf fi waroon a nekk pour que jamono yu mel noonu mën a dem doon nañu wax ay jamono ni dina ñëw assemblée nationale ba ma nekkee assemblée ba léegi benn ministre jaaroo ko fa man mii ak sama ay moroom man rek am na lu ëpp fukki question ak juróom yoo xamee ne bind naa ko dooma si jot benn tontu boobee ba léegi te yooyu bu fekkee dañ ko fi dajale boole kaak ñu koy dajale citoyens yi di gis ni que ils sont très prompts di réagir ci ay préoccupations wu Macky Sall la ci kaw bu bëggee faagaagal dara wala mu bëgg a jalgati système électoral bi nga xamee ne yooyu aussi ay problème la donc il y a besoin que ñu def réflexion su ma renvoyé wat sénégalais yi ci sama livre maa ngi ci indi réflexion boo xamee ne pour man dañoo war a taxawaat xoolaat assemblée nationale wàññi nombre députés yi parce que nombre bi ce n'est pas équivalent à de la qualité ndax États-Unis boo ko seetee cinq cent soixante-dix-huit mille habitants pour benn député Sénégal benn député pour un peu moins de cent mille personnes donc barewaay bi amul njariñ mm. il faut que ñu trouver. est que tamit qualité député yi waruñu ko xoolaat. moom benn député boo xam ni euh, bon sa jaar-jaar politique rek mooy tax nga mën a dugg ci biir assemblée nationale. gis nga gis nga yooyu. du xam-xam. gis nga gis nga gis nga. mais ñooñu est que du ñooñu la ñuy téye di leen instrumentaliser. di leen manipuler non am na ñoo xamee ni sax. bu mm. dee diplôme moo ñu ëpp diplôme foofu. mais mm. ñoo gën a tappale ñëpp. <laughs> parce que jaay nañu seen ngor gëmuñu dara. et c'est malheureux de le dire mm. mais c'est la réalité mm. aussi donc mais mm-hmm. réew mi moo gën a cher lépp lu ñu mën a am mm-hmm. te ku am sa société ku nekk mm-hmm. boo amee sa doom ndey boo xamee ne xamul dara te société ba bëgg ko du tax nga duwal ko fa da ngay wut ña nga xamee ne am nañu capacité nga yóbbu leen fa compétence yooyu nag ci société bu mag bii di Sénégal moom la ñu war a requérir ci ñi nga xam ne ñooy dem ci conseil municipaux yi wala ci conseil départementaux yi wala ci assemblée nationale tey jii boo demee mairie bu ñu fa dee cent quinze personnes yu wér ñoo fay nekk nekk à la mesure am aptitude yi ñu dem assemblée nationale bu ñu dee cent soixante cinq daf lay wér ni mënuloo fa génnee fanweeri nit ñoo xamee ni am nañu capacité pour mën a assumer charge bi nga xam ne moom la ñu fa taxaw day wane suñu ñàkk sérieux mm-hmm. day wane suñu ñàkk fullaal li essentiel mm-hmm. parce que warta doon euh, question wu naa na na nga ma neexale mm-hmm. poste député sacerdoce la on demande à un sénégalais mu am ay aptitude pour contrôler l'action du gouvernement ba pare orienter les ressources publiques loolu da nga war a am capacité soit da ngay am diplôme bi wala nga am jaar-jaaru àddina bi mais dans les deux sens il faut que ñu am benn commission d'équivalence boo xamee ni bu nit ñi déposé seen candidat ba pare daf koy càmbar rejeté candidat yi nga xamee ni nekkuñu dans ces ordres là parti bu mënta wut kilifa goo xamee ne am na jukko ji wala am na jaar-jaar ji wala am na xam-xam bi mais parti boobu jarut a voté xam mm. parce que kooku xamul lu réew mi di riir xamul li mu war a def mm. parce que bu ma amee sama benn jigéen rek neex na ma neex na ma ma jël ko dugal ko assemblée nationale mu nekk fa ba assemblée nationale jeex du mos a jël kàddu du ko jël commission du ko jël ci biir plénière bi mais genn fas kañ bu ko sangalulee awraam daqalu ko weñ. <laughs> tey xaw a doy waar dagg sànnee ci xam naa ñetti question moo ñuy dese benn bi ma lay laaj balaa ñuy ñëw ci ñaar yu mujj yi ngir ñu tàggatoo réconciliation entre Wade et le président Macky Sall noo koy jàngatee ñu bëri ñu ngi naan. am na dil boo xamante ni moo lalu ci seen diggante ñoom ñaar ngir li nga xam ne moo soxla wàllu nguur noo koy jàngatee loolu. man daal dama bëgg a sérieux hmm. ndax juboo ci lu mu mën a doon. Hmm. moo gën. Hmm. ay ñaari nit bu kiy taxawee fële kii taxaw fee nga xëy suba gis leen ñu ne dañuy dox juboo quelles que soient conditions yi war a tax ñu juboo lu rafet la. lu nit ñi war a mën a nangu la ndax. Euh, ces deux personnalités de ce pays su ñu demee ba trouver des terrains d'entente dañ naan alhamdulilah ba pare def benn point d'interrogation point d'interrogation bi ah, mooy euh, surtout bu nekkee ci wàllu politique bu juboo bi hmm. que ça ne se fasse pas sur le dos du Sénégal hmm. du contribuable sénégalais et des ressources publiques hmm. man yooyu mooy sama affaire te loolu du ma ko woo du ma ci duggagum ndaree aw ma lu wir lu ma ko firndeel mais sur le principe que juboo nañu dañuy juboo alhamdulilah rabbi alamin soo ko jàllalee ba mu yaatu jëm ci dialogue national bi man ne la je ne suis pas d'accord pour man dialogue national bi c'est un non-sens moo tax it suñu parti le FSD/BJ bokkul ci dialogue politique bokkul ci dialogue national parce que loxo du tàmm gudd ba pare bëgg gàtt il y a deux ou trois années il avait convoqué un dialogue national institué une journée nationale du dialogue national conclusion ya ma ca waxoon yëpp defu ci dara. et kuy ah, kuy kuy kuy kuy analyste. xam nga ni chaque fois bu amee ay contraintes wala mu am ay jafe-jafe dans le système politique wala jafe-jafe ci réew mi ci lay convoquer ay dialogue man nag kenn du ma instrumentaliser pour yàq li nga xamee ne mooy essentiel lu réew mi am réew. bu mënulee am ay élection yoo xamee ne dañ koy def à date échue. Mmh. réew moomu bu nee démocratie la day nax boppam. Mmh. parce que tey jii. lenn rek soo sookee dialogue bi moo doon que ni li mu def li mu li mu si jublu woon te am na ko mooy reculer élection yi te li pire mooy que ni ci exposé des motifs bi dañ naan la dañ koy retirer pour am jotu waxtaan ci affaire parrainage mais xanaa yéen bi ngeen di dugal parrainage waxtaanu woon leen waxtaanu leen woon eh, la loi elle doit être de portée général mm. et elle ne doit pas être discriminatoire. est-ce que du waxtaan boobu noonu dafay dafay jugee ci critique bi nga xam ne opposition bi critiqué critiqué nañ ko woon. non laata ñuy jëm ci élection. ñu war ci waxtaanaat mais mais mais attends. Hmm. attends hmm. su fekkente ni un président de la République ce n'est pas nécessairement absolument un politicien c'est quelqu'un c'est un citoyen avant tout boo xamee ne dañ koo jiital pour mu yokk réew mi yokk li nga xamee ne baaxal nañ ko approfondir suñu système démocratique assainir suñu système politique dimbali ñu lu ñu am lu baax lu nekk mu yokkal ñu ko mais un président de la République mënul mel ni nii nga xamee ne noonu la ñu ko configurer au Sénégal nga xamee ni ñun li wér ba wóoru on est dans une monarchie présidentielle et te ña nekk ci bopp nguur gi tàmbalee ko ca président de la république ba ca jeexatal ba seeni acte développement Sénégal tax ko jóg doo ko seet ci seen i programme de développement ndax amuñu ay programme mais programme bi baa ngi fi BRT baa ngi fi ñaar yooyu sax bëgg naa nga wax ci TER bi nga xamante ni ñu ngi ko ñu ngi indi wagon yi ñu ngi tabax pareegul ñu ñëwatee ci BRT BRT dugal ci Euh, benn projet boo xam ne yaa ngi ci projet bu pareegul ak yeneen i projet ba ci autoroute bi jaar ci VDN bi àggagul. xam nga loolu xaw a doy waar de. jooy naa léegi ci kanam. ñaari jàllankoor yi nga xamee ni moo yàq euh, nguuru Afrique yi. Mm-hmm. ni la benn bi. Mm-hmm. mooy wax lu dul dëgg. Mm-hmm. ñaareel ba mooy jël alalu réew ma. tey jii buñ ko xoolee ca élection ya. dañ ñu waxoon ni day avant ñuy dem élection ya dina commencé daw. te tey ji élection yi passé na kenn xamatul fii léegi ñaata at lay am. muy autorail bi muy teer boobu. muy dawee te teer boobu dëgg dëgg dëgg dëgg. li ñuy jëndaleel quarante xaw ma quarante cinq <laughs> kilomètres yooyu ëpp na ñaaw na jikki na dayoo. Mm. foo dem ci Sénégal te addina gi. Mm. tout lépp lépp tout est imbriqué. Mm-hmm. Mm-hmm. munuñu ni. teer boo xamee ni boo demee sa Nigéria nga gis kilométrage yoo xamee ni deux cent et quelques kilomètres gën a yomb. cinquante kilomètres bu Sénégal te gënu ko yomb rek ci ay benn milliard da nga koy multiplier par deux wala par trois wala par quatre. pour jot li Sénégal ñu ngi naan BRT nga jël berte bi nga xamee ne nekk na Ghana soixante milliards virgule trois la ñuy wax. nga jël bu Sénégal ñu ne la trois cent milliards. de qui sa mocton ñaareelu feebar bi mu la doon wax jël alalu réew mi. wax lu dul dëgg jël alalu réew mi. ñaari feebar yooyu ko ko sàlloo def ko sa mode de gouvernance amuloo programme de développement programme dóor nga am te à côté nga jël Sénégal du nord au sud foo dem tey jii ndakaaru gi nit ñaa ngi bëgg dee ngir problème logement kenn amatul foo dëkk mesure yi ñu jëloon ci loolu waaye taxawul tey jii question de santé yi jëm ci wàllu euh, cancer jëm ci wàllu yeneen euh, maladie cardiovasculaire yi tey la gën a yëpp nga dem ci dëkk ba ma dëkk nag mm-hmm. foo la ñuy jogget parce que foofu dañu ni en 2014 mm-hmm. président ci ay élection fa ñëw ni leen bu subaa rek bu ngeen ma wotee leen bu subaa rek ma defaral leen brèche bi depuis 2014 et on est en 2019 entre 2000 2000 2003 ba ñu ko ubbee ak léegi 412 sénégalais Saint-Louisiens et des jeunes entre 14 et cinq ans ñoo fa faatu devant l'indifférence général est-ce que pays réew sérieux na su fekkente ni cent milliards te déjà cent milliards mooy protéger langue de barbarie bi peut-être environ vingt cinq à cinquante milliards di stabiliser. est-ce que yooyu gënul nekk priorité que ay BRT moom moom laa lay wax ni la comment nit ñi di faatu di ñàkk seen bakkan xam nga li tax li tax li tax indiscipline bare. Mm. li tax réew mi nekk simbu bu tas kenn faaleetul kenn. simbu bu tas waaw simbu bu kenn boo ko weesoo da nga dem Sad eh, Sad Demba Diop simbu bu tas. simbu bu tas maanaam fëkk sàcc. dëgg dóore daane loolu rek. ba naxante ak dóorkat yi gaaw donc donc. Mm. li tax réew mi mel noonu mm. mooy que ni les principes yi gouverner la république mm. muy benn mm. farata yi mm-hmm. ndax gumba war naa tal leneen lu dul tebi teen mm. te kuy war du jotle woo mm. doo boot ay gàmb donc farata yi mm. moo war doon suñu préoccupation immédiate foofu à Saint-Louis on a besoin de cent milliards pour protéger la langue de Barbarie pour cent millions de cent personnes on a besoin d'un entre vingt cinq à cinquante milliards pour stabiliser brèche bi ñoom ñaar soo leen boolee ça fait cent cinquante milliards soo dindee BRT bi moins soixante milliards il te restera là-bas deux cent quarante yoo xamee ni dóor kese la. dóor kese waaw dóor yooyu ay la yéwén xanaa duñ ñu ci yërëm ñun. dimbali ñay dee. duñ ci yërëm ñun mais ñun lan la ñu bëgg nit ñi jàpp ni bokk nañu ci réew mi sur quels son les critères pour dire que le sénégalais sénégalais la si les ressources publiques. li nga xam ne moo war a assurer sa sécurité moo war a assurer sa santé sa droit à l'éducation sa droit à l'emploi yooyu yëpp dossier yooyu doo si gis dara te investissement yi nag mu gën a rëy noonee la gën a bone ci entreprise sénégalaise yi. Mm-hmm. parce que benn entreprise sénégalaise du ci gagné ñaari dërëm lu dul nekk tâcheron. Mm-hmm. tâcheron rek demal wuti wuti camion. suñu expertise ñun weesuwul nga am sa ñetti camion ñu ne ñu ñu embauché la ngaa tibbi suuf di indi di leen di xëppal di leen tibbali béton di leen ka xëppal. Mm-hmm. loolu mooy un pays comme le Sénégal qui se dit entre guillemets émergent loo loo foofu la expertise war a toll nos entreprises loolu la ñu war a dund ci système bi c'est comme ça que l'on pense le développement c'est comme ça que l'on veut que les Sénégalais se sentent à l'aise mais mënul nekk et c'est pourquoi le débat dafa war a génn le champ politique pour mën a dugg sur le champ des préoccupations du Sénégalais nga xamee ni la ressource publique l'intérêt supérieur de la nation moo war a prioritaire ci lépp lu ñuy def deux critères yi il faut que ñu ñëpp ñu àndandoo commencé ko combattre. wax lu dul dëgg. musiba naaru lay la. dóor moom muy sàcc. dóor moom ah, moo gën a rafet nañ ñu dóor. <laughs> mais dóor moom aussi. Mm, mm, mm. moo saxal ndóol ci réew mi. Mm-hmm. et je pense que ni mm-hmm. l'un dans l'autre. Mm-hmm. il faudrait absolument. absolument que sénégalais yi. génn ci seen nelaw gi ñu nekkee. parce que réew mi jàqu na. mu mel ni ki tey loolu loolu mooy wax ji sénégalais yi ci boppam. ñoo war a jël en mais leur pays. leur pays il faut que ñu génn ci. te buñ ci génnee. du jaagee ni damay dem seeti politicien ba nga xamee ne boobu maa gën a rafet wala sa sàcc na lu jéggi dayo ma topp ko di wësër wëri si di gannaawam du loolu il faut qu'on sache parce que il y mais bu troisième mandat amee nag kii kii xaar troisième mandat. waaw mais loolu mooy coow li def fi mu xam nga xam nga gis nga loolu aussi. Hmm. ñaari feebar yi ma la waxoon. wax lu du dëgg ak dóor hmm. mu ngi ci waat ndax tey ji hmm. président la république Macky Sall. moom ci boppam. moo ñu indil référendum. wax ci ñépp dégg. ni moom lii di tatu mandat bi. juróom la kenn mënatu ci dara. ñaari mandat yu toftale rek la na ci mën a te soo paree dem sa yoon mu ne moom jeexal na. ko waxoon waaye nag li naan kàddu goo xamee ni. dafa mos di dañ. waaw lu wax nee na wolof nee na loxo du tàmm gudd ba pare bëgg a gàtt. Mm-hmm. loolu moo tax tey jii man Cheikh Bamba Dièye su ma sénégal yi déggalee. Mm-hmm. du ñu nangu wax ci troisième mandat parce que suñu constitution dagaluñu ko. Mm-hmm. lu daganul du ñu ci wax. ndax bu ñu demee ba mu jot nag. ñu war a defaat élection présidentielle Macky Sall la ni def ciy bokk en ce moment là on ne parlera pas de troisième mandat. coup d'état constitutionnel la ñuy wax. ragaloo li amoon 2012 amaat. su fekkente ni. waaw mooy ba nga doon takk sa bopp defuñu attention buntu assemblée nationale waaw su fekkente ni defuñu attention. Mm. su fekkente ni leçon daaw yeeg bërki daaw yi nanguwuñu koo jàng. ak leçon yeneen réew yi li xew ci yeneen réew yi actuellement nanguwuñu koo jàng. Algérie sikkul ni mën mm. ñu am musiba te nag li gën a bon mooy. Mm. li gën a bon mooy. Mm-hmm. dafa mel ne indi bi moo ko suus Guinée. noonu. Mm-hmm. Côte d'Ivoire mm-hmm. noonu. te li ci gën a bon mooy. il faut que ñu xam ne wala Gabon bi moom mi ngi waaj loolu Ali Bongo te te dafa dëgg dëgg dëgg ko boo ko gisee ni muy doxee mm. ak ni muy waxee mm. nga xamee ne am ah, gis nga à la limite tu te poses la question mais ñii est-ce que est-ce que du benn syndicat mm, <laughs> non <laughs> non ñoom la ñuy def loo gis non dañ que est-ce que gars yi du ñu benn syndicat boo xamee ni di waxtaan seen biir non seulement dañuy waxtaan seen biir mais dañu am kilifa feneen te kilifa googu di leen di jox ay ordre ndax ñoom ñëpp a yuuxandoo les mêmes choses. PSE euh, gii nga naan ñu naan Sénégal. plan Sénégal émergent. foo dem ci réew yooyu ñu ngay wax plan Sénégal émergent les mêmes critères les mêmes échecs et les mêmes énormités noonu la ñu dugale woon ci ay conférence nationale ñu ko yuuxu suba ngoon dañuy récupérer le mécontentement national di réagir ñoom en synchrone mm-hmm. effectivement yàq y a que des intérêts convergents moo mën a justifier comme daal donc donc donc il mm-hmm. li ma junj foofu mooy mm-hmm. l' indépendance par procuration bi ñu yor effectivement parce que ñun. Mm-hmm. dans les faits. li ñuy wan tey jii. on se rend compte qu'en réalité suñu gars yi doon wax indépendance 1960. dañu doon dóor dañu doon dóor. kon dóor boobu ba tey mooy feeñ mooy dóor bi nga doon wax rek doon dóor. parce que dóor boobu moo fi yegg ba léegi ba nga xamee ni. loo baax le lu nekk. balaa kenn di jël. ñoom ñooy ñëw jël ba pare. ñeneen ñi soogay set la cay des la ca ruus ñu soog koy jox et cette mentalité la de prédation suprême. et peut-être la justification de not état de sous-développement. te képp koo xamee ne jusqu'à Abdoulaye Wade. ba ci Abdoulaye Wade. dañ daan di am conseil juridique boo xamee ni day nekk sa présidence. loi bu ko ministre yi liggéeyee ba pare balaa muy dem assemblée nationale ab tubaab bu xonq cur boobu mu koy xool ndax méngoo nag li nga xamee ni mooy architecture loi yi nekk ca métropole bi koo xamee ni boo defee say loi mu seet ka balaa muy dem sa assemblée nationale est que ñoom duñu dicté loi non defar nànk rek. Hmm? mu seet ka ba balaa ngay dem assemblée nationale. boo seetee leneen mu seet ko balaa ngay dem rek kon sikkul suñu demee ba nga xamee bu ñu amee pétrole ñu ëppale ci. Hmm. bu ñu amee ay ay ay ay marché ñu ëppale si. ça s'explique. soo xoolee ni aussi depuis cent quarante cinq ba léegi. Hmm. ñu ngi nekk ci apprentissage yu CFA boo xamee ne mënaguñu amokkal te man damaa jàpp ni jàng. jàng bu weesoo cinquante cinq ans. retraite la. kuy jàng. di jàng ba cinquante cinquante ans d'études non dootoo liggéey <laughs> retraité nga donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui mm. que suñuy réew yi amuñu maturité bi mm. amuñu connaissance bi amuñu xam-xam bi te sama livre boobu boo ca mm. demee dossier yi laa ci consacré pour dire simplement que ci Sénégal am na ay acteurs citoyens yoo yoo xamee ni réew mi rek leen intéressé wàllu réew mi rek leen intéressé te ñooñu dañoo war a dox ànd ak askan wi askan wi tamit dox ànd ak ñoom. Mm-hmm. li may li may mujjee jeexal Cheikh Bamba Dièye est-ce que dina nekk candidat ci local yi ñuy ñuy dëgmal ndaxte dafa mel ni kii benn paxti ci askanu Ndar dafa mel ni ki rëccu nañu sa sa dem. ah waaw dinañ ko rëccu kañ maa man kañ moom te loolu moom dinaa la tontu tontu bu gaaw. Mm-hmm. mooy que ni allah su ma yàlla mayee ma fekk kat te ànd ak wér. Mm-hmm. dinaa nekk candidat parce que da dafa am juróomi at. yu teg tuuti yoo xam ne ni mhm. yàlla dafa def mhm. ñu jiite dëkk boobu mhm. mu metti si ñun lool sàccu ñu alalu réew ma ndax buñ ko sàccoon tey jii ñëpp dégg ko yàquñu ko fayewuñu ko caaxaanewuñu ko. dégg naa bàyyi nga fa koppar sax. bu baree bare bare te dama leen daan di wax. au départ am sax ñaata milliards la. vingt cinq milliards d'investissement donc ah, te te li gën a am solo. Hmm. mooy man man du bett kenn. Hmm. au début bi ñu ma falee premier jour bi daa wax ni leen dama leen xamal ni yéen waa Ndar mm-hmm. alal ji yi nga xam ne moo nekk ci mairie bi mm-hmm. du ma ko fowe mm-hmm. du ma ko ngénte it du ma ko joxe ci dëj yi kenn du ko sabare ñi bare dafa ne woon nañu damay caaxaan mais pendant les cinq années c'est exactement comme ça que ça a été géré boobu def naa ko donc li ba wóor xëy na nit ñi amoon na nu ñuy gisee politique amoon na nu ñu jàppee nitu politique ci caaxaan bi ak folklore bi mais je pense que suñu génération ñun. ñoo war a def seen bopp. violence bi war a am même bu fekkente ne nit ñi ci seen ñàkk xam ak seen ñàkk ubbeeku dinañ leen sanctionner mille fois mais tey jii maa ngi sant yàlla. parce que il a fallu mois. bi ma fa jógee rek c'est nit ñi commencé constater ni. que ni affaire bi. dafa mel na yàlla ak yàlli et loolu aussi. li muy wane mooy Saint-Louisiens yi ak sénégalais yi. ñoo war xam ni. ay parandoo ak maa ànd ak diw maa bokk ak diw joxul te kenn capacité pour mu mën a dimbali nit ñi mm. kay dimbali nit ñi ci jikko la leen di dimbalee mm. ci jaar-jaaram ak ci taxawaayam et je pense que ni bu ma liggéeyee ndar googee mm. defal leen assainissement bu dul jeex tabax ci wàllu géej gi tabaxal leen 68 maisons yoo xamee ni ci wàllu changement climatique bi la te kenn fekkuma si état Sénégal boobu ba léegi ñaari dërëm mënu koo def jëm ci taxawoo ña nga xamee ne ñoom la seen kër yi yàqoo bu dul woon kër ya ma tabax du ñu am fu ñu dugg te noonu laa taxe woon ay unité de gériatrie yoo xam ne day jàppale nit ñi seen biir kër ay ambulance ki médecin ki infirmier yoo xam ne dañuy visité nit ñi seen biir kër am un transport scolaire gratuit boo xamee ne modd yàq bu nekk jéem nañ ko cee gàllankoor et je pense que ni c'est ça loolu la ñu war a def parce que gis nit ñi Euh, man toujours j'aime la compétition. et j'aime le Sénégal aussi. te loolu sénégalais yëpp xam nañ ko. awma ci sago sax. et je pense que ni jaaduwul ñu nekk ak Côte d'Ivoire ci même sous-région. Côte d'Ivoire du ñu raw. on a les moyens de les dépasser. Ouais. on a les moyens de faire mieux que de faire mieux que beaucoup de pays africains. mais loolu àndul ak folklore bi ñu nekkee. àndul ak caay-caay bi àndul ak caaxaan bi day daal di laaj wax lu dul dëgg mm-hmm. ak sàcc ñu baare ka multiplier ko par zéro ci suñuy comportement mm-hmm. day daal di laaj sénégalais yi yeewu ba mën a ràññee nit ñi nga xamee ni mm-hmm. seen kàddu démb ak seen kàddu tey moo ànd maa ngi bëgg a yàgg nag ci biir affaire bi je mets au défi les gens aussi ci li nga xamee mooy responsabilité yi nga xamee ne politique jox na ma ko waxuma ni maa gën kenn waxuma ni jub naa déedéet je sais que j'ai énormément de déficit déficit comme nit ñëpp maa ngi sama ay tolof tolof mais yàlla suturaal na ma ba depuis ba ma ci nekkee ba léegi pap waxaguma dara xëy suba weddi ko te dégguñu la ci sàcc sàccu ma ñaari dërëmu mm. kenn mm. nekkuma naan waaw déet déet waaw mm. nekkuma di doon girouette te sama position bu dëgg jibee duma ci seet sama bopp du ma seet sama parti loolu moo tax keroog ba ma jàppee ni ma Macky Sall ca assemblée nationale dañ koy doon jéema néewal doole ma jàppale ko ba dugg boîte vocale loolu moom ma mayaat légitimité bi ma gisee ni Karim Wade dañ ko amal problème ci affaire dañ koo jaay doole génn ko réew mi ba man tamit ma taxaw si sama kemtalaay kàttan kazalika naka noonu bi ma gisee xalifa ñu nekk ci même situation bi mi ngi noonu te ñoo ñëwee ñëpp bokkuma see kenn parti mais que ni esprit solidaire boobu suñ ko ñàkkee am ci réew mi mooy que ne consolider nañu insécurité wu sénégalais yëpp. te jàpp naa ne bu ma nekkee ci jafe-jafe. Pape du ma seetaan. Sénégal du ma seetaan. sénégalais yi duñ ma seetaan. donc loolu aussi. damaa bëgg. may sama bopp. situation bu war a tax bu ma nekkee ci jafe-jafe. ñu tooñ ma laa wax. sénégalais yi jàppale ma te loolu mooy une nation. loolu moom la ñuy liggéeyee réew. jërëjëf euh, honorable député jërëjëf euh, président mu jiite euh, parti bi nga xamante ni moom mooy. FSD/BJ. DBJ ah, nekk meeru Ndar mu mel ni kii nekkaan na tamit candidat pour delluwaat Ndar ndaxte gars yi ñamoon nañ ko daa mel ni kii dañ koy réclamer waat pour mu delluwaat ci biir dëkk ba ndax nit yi nga xam ñu ngi faatu comme problème yi nga signé yi nga souligné sànq bëgg nañu ko ko saafara te amoon nañ yaakaar ci yow ba nga fa nekkee yaakaar googu tamit la ñu féddaliwaat man loolu enquête boobu def naa ko biir Ndar dem naa fa jot naa fa laaj lu bëree bëri bëri gis naa fa lu bëri ah, kon yàlla la yàlla defal jàmm lañ lay euh, say mbébét ci réew mi

ak sa diwaan di Ndar Géej yàlla na ko suñu borom mottali yàlla na la suñu borom may kàttan bi en tout cas ñu ngi lay remercier waxtaan bi yàgg na am na yeneen yooyu def waroon nañu def tax 30 minutes 45 minutes mais foog naa ne passé na ko ndaxte li ñu doon waxtaanee moo am sens euh, ñu ngi lay jaajëfal honorable jërëjëf jërëjëf maa ngi lay fay bu baax merci hmm. di jaajëfal tamit euh, l'équipe euh, technique Ablaye ak ki nga xam ne moom mooy Bira Seydina mais tamit coordination bi le red chef Mangone Ka bi nga xam ne jox nañu quelques questions yoo xam ne dañ ko bind bindoon ci kayit mbokk yi jaa ngeen jëf yéen ñii doon seetaan euh, ñu joxante rendez-vous dans 15 jours fukki fan ak juróom ak beneen gan ci émission wax ji jaa ngeen jëf jàmm ak jàmm.